papa ya Ast ana miti doom Rama Paate e koddu yaay déglu ma papa ya Ast ana miti doom Rama Paate e eh. Daba yaay réfléchir papa ya Ast ana miti doom Rama Paate e eh. Sali non mais est-ce que man dama dëkk ak ñoom pour xam exactement ñaata ñoo fa nekk ak seeni tur mais yow yaay fréquenté foofu man fréquenté wu ma fa. déglu li may wax papa as am na ñetti doom Rama Paate et. Sali. mais yow est-ce que mën nga ma may jàmm yow yaay fréquenté foofu man fréquenté wu ma fa. waaye yéen ñii mën ngeen maa dimbali ci réponse boo leen